naka nga gisee os boobu ak lépp li nga xam ne aju na ci. waa jërëjëf boo xoolee dañoo am ñaari pàcc yokk-yokk hmm. benn pàcc bi bitim réew la jógee hmm. dal suñ kaw benn bi ci suñu yaafuus ak suñu yaacaaral la lawee hmm. bi jógee ci bitim réew dal suñ kaw xam ngeen ne euh, mbas mi temps yi dafa indi ay jafe-jafe ci doxanu kom ci au niveau mondial. niñ daan livré wàññeeku ndax buñ confiné ay nit liggéey bi day taga témbe et cetera loolu yëpp nag ak conteneur yi dem benn boor war a delluwaat dëkk bu mel ni comme ñun nga xam ne dañuy importer lu bari su conteneur ñëwee dafa dara dem vide et cetera yooyu yëpp bokk ci li tax ba euh, transport bi maanaam mm-hmm. euh, jëlee bagage yóbbu dëkk ba dëkk euh, yokk yokk bu métti métti métti loolu moo tax produit bu mel ni diwlin nga xam ne dañ koy jéggaani bitim réew euh, yokk moom itam yokk boo xam ne euh, dafa jéggi dayo mais am na tam loo xam ne ab suñu yaafus ak suñu yaacaaral surtout bu ki nga xam ne moom lañ dénk mbiri muy ministre di commerce bi di euh, Assome jaata mm-hmm. tax na ba ñu dund yenn yokk yoo xam ne bokkul ak lu jógee bitim réew mm-hmm. yu ci mel ni xam nga soble fii lañ koy bayee mënuñ wax ne dafa jógee bitim réew moo tax mu yokk ndax soble bi euh, euh, fiñ koy bayee prix bi wàcc naa wàcc wàcc ba nga xam ne euh, baykat yi ci seen bopp dañu am jafe-jafe pour jaay ko mm-hmm. ba dañ ku ku joxe sax cent franc le kilo ñu jaay la. am na yàqu sax. am na sax yu jot a yàqu mm-hmm. ba nga xam ne comme dafay xeeñ di leen sonal dañuy gas sax pour suul ko pour mën a mucc ci xet gu naqari gi mm-hmm. mais loolu bu amee. gis nañ ne njëg yi au plan national maanaam soble bi li muy jar fii ci biir réew mi soble boobu nga xam ne moo yomb léegi ba léegi wàccul soo demee ci quartier yi bitig yi ñu ngi koy jaay ay quatre cent ay cinq cents kon nekk na loo xam ne du lu jaadu waaye am na benn kuréel gu ñu tuddee agence de régulation des marchés mu nekk kuréel goo xam ne ci ministère du commerce la bokk nga xam ne liggéeyam mooy surveiller loolu fexe ba di ci def ay saafara ñu ngi ne muq muqaaral waxuñ A waxuñ B faslante wuñu xànc toog benn place seen njiit di euh, ministre du commerce moom itam faslantewul xaj xaj ndax li mu tal actuellement mu ngay def politique ca euh, Kër Massar. te li nga xam ne moom lañ ko tànnee mooy mu régler problème yi ñu ko dénk ci mbirum commerce pas du ay dem di def politique Kër masaar ndax kër politique Kër Massar lu intérêt personnel am la. te lii ñu ko dénk intérêt réew mi yëpp la. donc loolu bokk na ci li tax euh, soble nekk ci prix boobu beneen jafe muy suukar. ñu gis ne suukar ñun day wax dëgg yàlla consommateur yi gisatuñ ko ndax ñu ne dafa manqué waaye ndeke suukar am na ci réew mi ndax compagnie sucrière bi nga xam ne moom mooy defar suukar moom am na lu ëpp juróom benn fukki junney tonnes maanaam plus de trente mille tonnes yoo xam ne am na ñaar fukki junney tonnes ak juróom yoo xam ne li nga xam ne suukar bu mokk la kon nañu wax suukar manqué na ndax loolu noonu ëpp na benn yoon ba ak genn wàll li ñuy consommer chaque mois ndax chaque mois ñu ngi consommer dix huit mille tonnes sucre. kon wax dëgg yàlla suukar manqué wul su dee rek am nañu groupe loo def seen i combine def seen i complot def seen i mbir pour yokk suukar bi ministère bi nga xam ne mooy ministère du commerce moom moo leen war a delloo siwaat jaarale leen yoon te ministère boobu mu ngi ne mu xumam itam di seetaan donc kon am na yokk ci biir réew mi. yokk yoo xamante ne bii ni nga xamante ne noonu la ñu waroon a doxalee euh, euh, parti boobu moom lañ doxaleewul moo tax yokk boobu am léegi nag bi yooyu yëpp amee bon ñun bi ñu waxoo fu nekk ñu wax wax ak kilifa yi wax ak administration bi yëpp ci la administration bi ne ministre bi na woote réunion ndax dafa am loi boo xam ne moo tënk mbirum commerce fii ci réew mi moolaat nañ ko sax mais bi ñu ko moolaatee dafa wax ne bu yenn situation yi amee dañoo war a waxtaan fixer prix yi mu tudd conseil national de la consommation donc ministre bi mujj oote conseil national de la consommation pour ñu seet nuñ mën a jëlee arrêté arrêté mooy xaatim gi nga xam ne su ko ministre bi jëlee day wax ne lii nangam lay jar. stabiliser voilà léegi nag su ko defee foofu nag suñ koy xaatim dañ koy calculer noo xam ne. du du du du du du lor kenn ndax kii kii produire dara war naa mos kam koy jaay muy grossiste bi war naa mos demi grossiste bi tam war naa mos ak détaillant bi waaye mos yooyu ñuy mos warul la rendi consommateur bi ndax ci diggante bi bu amee ku xamp wala ku lump rek voilà maanaam bénéfice yi marge yi su dee am na ku ëppal rek dafay faussé lépp ndax kon consommateur bi lépp moom mooy nekk ci coono pour bañ loolu am ministère du commerce yoon da koo may na ko bu ay yokk-yokk yu mel noonu amee dafa war a jël dogal ne prix yi nangam la moo xam lu ti doon lu ñuy jaay du question lekk rek même bu ko neexoon téléphone mu xëy na temps lay jar courant et cetera lépp loo xam ne lu lu lu ñuy jëfandikoo la rek te mu am prix ñu koy jaay état am na sañ-sañ xëy benn jour ne lii lay jar mhm. def nañ ko fi 1994 bi nga xamee ne dévaluation am na ñu xëy daaneel suñu xaalis bi soo amaay cent franc mu mel ni fukki dërëm nga am gars yi jël yëpp yokk biñ saisiré euh, président Abdou Diouf mu ne kon li ngeen wax dëgg la mu bloqué prix yëpp wax prix yi lii la lu ne lañ fixe moo xam ndox ak médicament ak lépp loo xam ne daal lu ñu jaay la dafa xëy ne prix bi nangam la léegi nag ci loolu lañ basé woo ba pare nag ñu doog a waat nag li nga xam ne moom mooy prix yi exactement kon loolu sañ-sañ la boo xam ne état moo ko moom te état mi ngi koy jaarale ki ñuy wax ministre du commerce te ministre du commerce musta nangoo jël arrêté te mënut a def liggéeyam lu may mu jël arrêté ndax tey jii bu fekkee ministre bi daf la bëgg a wax ne la lii kat li nga koy jaayee seer na day fekk mu wax ñaata lay jar ndax su ko waxul su fekkee ne aay dara soo ko defee tooro d'accord alors ministre du commerce wax nga ko euh, est-ce que euh, inactivité boobu manque de proactivité boobu noonu est-ce que nekkul wàllum ñàkk télé wala boog wàllum politique bi nga xam ne moo gën a dominer les membres du gouvernement. waaw dafa am yu yu bari yu ci rax. Mm-hmm. xam nga am na noo xam ne boo ko jëflanteek ay nit sax dangay am jafe-jafe après pour teg leen ci yoon. Mm-hmm. ndax euh, ne nañ. Euh, buñ jàppee wax waaw bu fekkee mm-hmm. dam nañ waxambaane ci doxin wala. donc moom problème bi mu njëkk am mooy jël arrêté. xam na ne arrêté lañ war a jël. bañ ko falee bees woo naa ko téléphone ci bi ciment bi yokkoo ma ne ko ah comme léegi dañoo yokk 5000 mu nekk loo xam ne lu officiel la ndax am na benn tax bu fi nekkoon ak loo xam ne dañ koo teg pour ne dimbale ñi amul xaalis pour jënd kër maanaam 100000 logements yi. kon comme officiellement ciment bi teg nañ ci 5000 da ngaa war a wax ci arrêté ne kat ciment nangam la doon jar teg nañ ci 5000 kon léegi nangam lay jar ndax boo ko deful su fekkee ciment bu boobu mu ngi doon jar 57000. am na ñoo xam ne ñu ngi ci doon laxas jaan di ko jaayee soixante mille wala soixante et un mille suñ ne yokk nañ cinq mille dañuy jël cinq mille rek teg ko ca lañ doon jaayee fekk na lañ doon jaayee normalul kon prix bu normalul la ñuy am foofu pour bañ prix bu normalul am nag da ngay jël arreté nga wax ne ciment bi bii nii cinquante sept mille la doon jar teg nañ ci cinq mille soixante et un mille lay jar bii mi ngi doon jar cinquante neuf mille teg nañ ci et cetera ah musta def loolu mais am na benn agence de régulation du marché nekk benn service ministère du commerce hmm. mais naka lañ mën a expliquer après tout ce qui se passe euh, agence boobu ne tekk tekkaaral amul benn suivi boo xam ne am na ci marché bi mooy li may wax rek defuñ seen liggéey leneen lañ tal waaye taluñ liggéey bi ñu leen jox parce que agence boobu moo war a wax mu ne yow miy bay boor champ maanaam ci peggub tool bi su nit ñëwee di jënd si sa sa sa sa hmm. nangam la koy jëndee léegi su ko defee ñu ne dinañ ci teg nangam pour ki nga xam ne mooy grossiste bi ko fa jëndee moom mi ngi koy jaay beneen demi grossiste boo xam ne nangam la ko wala ko kooku war a tegal ba demi grossiste bi ak ñaata la koy jaayee ki nga xam ne mooy détaillant bi su ko defee ñu ne kon prix bi nga xam ne moom lañ koy jaayee consommateur bi nangam la donc prix bord champ lii la prix consommateur lii la nanguwuñ def loolu boo deful loolu su fekkee prix bor champ rek nga fixé ñooñu donc ñoom duñ dépassé ñu ngi jaay prix normal waaye prix bi nga xam ne moo ñëw ci consommateur comme surveillé ko dangaa faral commerçant yi nekk ci diggante bi lu tax ñu faral leen kenn xamul. mais euh, les agents du du du service du commerce c'est des agents ñoom en réalité nañ mën a xam xam nañ ko problème mooy lan moo tax defuñu ko. déggoo li ma la wax su dee yow da ngaa bañ a wax foo xam ne soo waxulee lii lay indi mu leer na la ne boo waxulee dina am ñu groupe loo ci loolu profité ci gën a yokk seen i mbir. Mm-hmm. nga noppi xanaa kon ñooñu nga faral nga noppi te li ngay def xam nga ko. mën nañu ne wàllum corruption moo ko ah xaw ma lan la de parce que wax dëgg yàlla allahuma alamin mais daal li am ba am daal mooy. Mm-hmm. ñi ngi seetaan ñoo xam ne ñi ngi def lu normalul ñu xam ne ñooñu ñi ngi def lu normalul ba pare ñu noppi ci. Mm-hmm. kon loolu doy na waar. te loolu ministère bi. ministre bi jiite affaire yi moom ci boppam moo toog di seetaan lu mel noonu ndax ministre bi mooy wax eh, def leen seen liggéey def leen li def leen li mais bu fekkee ministre bi ci boppam nanguwut a def liggéey bi nanguwut a jël li nga xam ne mooy arrêté mooy dogal bi nga xam ne boo ko jëlee ku ko dépassé ñu rëq sa ndig su dee leer na ma ne man su ma jëlee arrêté bi yow boo dépassé ma ñu ñu te yow am na fu ñu jaar maag yow xam nga kon nu ma jël arrêté est-ce que comprendre corruption bi rek mën nañ ko waaw yaa ko noonu corruption dafa ñu jaar ko war a defee ngi seetaan daal ñu ñu warte seetaan est-ce que du ñàkk xam aussi si côté ministère déedéet parce que ministère du commerce du benn nit. Mhm. ministère du commerce ay ay techniciens ñoo fa dajaloo. mais justement techniciens yooyu laa lay wax ne ñoom seen xel màcc na ci mbir mi. Mhm. naa nag bu ñu waree agir. war ñu mën a xaar ministre bi bu fekkee dafa nar a def ay déedéet mënuñoo agir parce que ministre bi moo am droit de signature arrêté bi <laughs> <laughs> te bu arrêté amul mhm. bu arrêté amul ñoom ñu mun a am base légale pour liggéey comprendre nga fi mu effectivement ça pose problème quand même. c'est un réel problème xam nga le ministre c'est un politi c'est une politicienne. non mais dama lay jox benn exemple. Ah. moom politicienne la. d'accord waaye CFM jox na ko juróomi yoon ordre yu leer naññe. ko conseil des ministres bañ fe bañ fésal ko. Mhm. muy xoolee. Mhm. am na sax benn moment dañ ko laaj question mu déclaré mu ne mënuñ ci dara. Mhm. loolu garaaw na xanaa kay da ngay jéem sax ba tële ñu ne waaw jéem nga sax gis nañ ne essayé nga waaye mënuñ ci dara. bañ tàppe waat encore ci kawam pour mu doog a jéem a essayé waat xam nga tam loolu dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a doy waar daal dafa xaw a vraiment man daal xaw nu ma koy tuddee. Mmh. effectivement ah. mmh. alors Ouzin ma bàyyi la nga. Ah.